la la فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله la la la la la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

来啦！哈。 la ilaha illallah fa la ilaha la la la. min shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim eh, bokki talibé yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu waa daayira Darahman Diaw ah, ni nga xam ne si lañ ko baaxoo di def at mu jot di ñëw fii ci eh, jumaada eh, ci ndeqim sëñ Assis ànd ko ak waa këram Modou Bara Dieng ak wa Jaksaaw ak waa Dawri Ndiaye ñu ànd ak Serigne Bara Diaw ak Serigne Cheikh Diaw mi nga xam ne si mooy Serigne Cheikh Diaw Mansour ñu teew fii ci eh, jumaada eh, ni nga xam ne si yàgg nañ ko def at mu jot àndandoo di liggéey tool yi sëñ Assis yi di ñaan suñu borom lëngoo boobu yàgg lool ndax ñoom gannaaw ñoo bokk daayira bi bokk daa raxmaan ti daayira bi nga xam ne si ñoo ko seq kenn mënu leen ci kon saa yu ñu amee ñoom it yitte am ab liggéey santuñu ko dañoo war a daal di mobiliser wu àndandoo dem ñëw jàppale si leen te it eh, fas yéene barkeelu itam ci toolu sëñ Assis bi ndax murit moom saa su ne rek day war di fàggandiku ngërëmal sëriñ bi fépp foo xam ne si ña nga fay liggéeyal sëriñ Tuubaa rek su fa manee teew mu teew fa tey jii nag ñoo ngi fii ci tool yi jumaada yi di liggéeyal sëriñ Tuubaa ànd ko ak waa kër man Mansour yi nga xam ne si ñoo ñoo ñoo fi teewal Serigne Cheikh Diaw Mansour muy Serigne man Diaw mi ak doomam ji ñuy wax Serigne Cheikh Diaw ànd ko waa Daaru Ndiaye euh, sëñ Abdou sëñ mi ngi fi ànd ak euh, magu taalibe yi Serigne Ndiaga Ciss ak ñu bari ñoo xam ne si ñu ngi jógee Daaru Ndiaye ànd nañ ko itam ak ñu jógee nesaw na comme nañ ko daan baaxoo def rek saa suñu jógee jaar nesaw na ñoom it ñoom ñu ànd ñun ci liggéey bi ñuy ñaan suñu borom daal ñu yàgg ko woote ñu yàgg ko wuy si te lépp lu ñu fi def rek suñu borom nangul ñu ko ti dencal ñu ko fa yàqee gudd bi jaay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke Sëñ Tuubaa barke Cheikh Mansour asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di leen di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jégal di ñaanal sëriñ yàgg fi am wér yaram ak mboolem waa kër Cheikh Mansour ak mboolem waa kër Baye Sëriñ yëpp waaw ñu ngi fii tey ci jumaada ci tooli sëriñ Sidi sëriñ Assis moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Aziz moom Serigne Baara moom Sayul Xadim ñu ngi fi ci liggéeyum yi ak liggéeyum ngóob ñu nekk ci liggéey bi fas yéene ko liggéey comme nga xam ne si noonu lañ kaan daan defee at mu jot nag ñu ànd koog mu baari jën ñoom di koy liggéey ngir kóllëre ga nga xam ne moom la bàyyi Serigne Diaw Mansour seqoon ak Serigne Ibra Diang ak Serigne Abdou Aziz kóllëre googee rek moom la ñu mottali ba tey moom la ñu seq ak moom sëriñ Cheikh digal ñu saa su ne waxtu wane ñuy fetli kóllëre kóllëre googu kóllëre googu tamit moo tax ñu xëy suba ànd ak mboolem taalib yi yëpp ñëw fii xëy fii fas yéene liggéey sëriñ Touba liggéey boo xam ne liggéey bu ànd ak positif lay doon wax dëgg yàlla ñu ànd koog suñu yi nga xam ne benn lan du ñaar muy waa Daaru Ndiaye di waa kër Sëriñ Abdourahim ak euh, waa ni na ñëpp ak waa Daaru Rubal ñëpp ñu ànd ñoom rek nga xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci loolu léegi nag ñëw fi ngir euh, sàkku si barke ngir sàkku si tamit euh, ngërëmu Sëriñ Tuubaa nga xam ne nii toolub Sëriñ Tuubaa la kon nag war nañ fee mën a sàkku toolub Sëriñ Tuubaa war nañ fi sàkku ngërëmul Sëriñ Tuubaa ngir mu jëriñ ñu jëriñ mboolem jullit yi di ñaanal bu baax tamit ki nga xam ne mooy suñu kilifa di sëriñ Cheikh mu yàgg fi bu baax a baax a baax liñ fi njëkk fas mooy ak yàggam liñ fi njëkk a fas ak wéram waaw ci tool yi ca tool yi sëriñ Tuubaa yu nekk nag am nañ ci yaakaar ci loolu ci ñaan ko buñ ko ñaanal suñu borom may ñu ko fuñ toole ñu ngi koy ñaan di ñaanal mboolem taalibe yi tamit suñu borom defal leen xéewal defal leen fan wu gudd wu ànd wér gu ak xéewal yu bare bare bare bare ak fu man man di nekk ndax wax dëgg yàlla jàmbaar lañ lool lool lool lool lool liggéey bi rafet na sell na pëstéef lañ ko liggéey wax dëgg yàlla ndax tool bi nekkoon tool bi macha allah mu egg ba ñëw fii kon nag loolu tamit dañ leen ci sant di leen ci gërëm bu baax baax a baax te xam ne Cheikh de nekk fi waaye ñi ñi nga xam ne si ñi ko fi teewale suñ xool seet na ci gis nañ tamit seen pëstéef ak seen paspas pas ca loolu tamit moom rek saa su ne waxtu bu nekk moom rek lañu moom rek la ñu wane Eh, ñi ngi wanewaat pas-pas bi nga xam ne moom na maam Ibra Dieng amoon ci biir kër gi ba nga xam ne daana wax Mbacke Diaw te maam Ibra Dieng kër gi kenn musu ko cee man lépp lu bàyyi Sëriñ Diaw Massa santaane kenn du ko ci kenn du ko ci jiitu kenn du ko ci man tamit mu nekkoon nag sëriñ bi nekkin woo xam si nekkin wu rafet la kon nag buñu demee ba ak njabootu eh, maam Ibra Dieng nekk fi di mut baara ak njabootu bàyyi Sëriñ man Mansour di sëriñ si kon nag wax dëgg yàlla suñu àndee loolu wërta jaaxal kenn suñ jaaree fa nga xam ne si fa la mag ñi jaar tamit wërta wërta jaaxal kenn ñu defoon leneen rek lay jaaxal nit ñi waaye lii nga xam ne du du du ak jaaxle kon nag ñun gone yi nag dañ cee war a defaat ab laxasaay waa defaat ci xam-xam dafa gën koo gën koo feetle bu baax a baax ànd ki ànd gi nga xam ne si moom la mag ñi àndoon ñu ànd ko bu baax a baax baax ndax loolu mooy suñ njëriñ tey mooy suñ njëriñ ëllëg di sant mooy bu TV bi nga xam ne si mooy euh, def lii nii muy euh, mbay Diaw Mbaye ñaan ak mboolem ñi nga xam si moom la àndal ñu ngi sant ñëpp cey gërëm ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Sanjaw ak Daaru Njaay ak Jeeg Saw ak Kolobaan ci turu Modou Bara Dieng Modou Bara wax ne mu ngi santaan yàlla bu baax di sant ñaari waajuram di sant waa kër sëriñ Bara di tàmbalee ko ci mag ba ci yow mii na sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax xolam sedd na guy ndax fi bu ñuy lim ba am na départ da Rahman Diaw te dara waralu ko lu may waa da Rahman nak waa Daral Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoo ne ci gannaawam nee na cant googu ñooñu xam nañ ko te mu wër na ko ne. ah moom xam na ko ah nee na foofu la cant gi tàmbalee ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla ak Serigne Touba ñoom ñi nga xam ne ñooy waa ak waa kër Serigne Darou Sène ak eh, daayira bi mu boot diggante Jok Saaw ak benn ak Kolobaan ñu ngi leen di sant bu baax ah, topp nañ ci moom te gannaaw yoroon ko ci dara lépp loo xam ne lii dañ ko war a laaj ndigal rek ci moom lañ koy jaarale. lépp lu jëm ci sëriñ bi ci moom lañu koy jaare kon nee na foofu xolam sedd na fi guy ah nee na boole gi ko boole ñoom wax dëgg yàlla ñoom it neex nañoo boole lool ndax sonaluñ ko ci dara amul lenn loo xam ne lii danañ ko def te tàgguwuñ ko jiital nañ ko te topp ci moom kon nee daal lii li nga moo di cantam ëmb na ko waaye lépp muy sëg biiru cant xam ne wër na ko ne moom. baayam ba nga yàlla dogalee mun sanc Darou ànd ak Baye Sëñ Diaw sanc ko nu yaayee lu ci jamonoom bu sëñ Abdou si ñëwee bu wootee bu ko Baye Sëñ Diaw wooyee Mbacke Diaw la koy wax mu doon bu dëggu boo xam bii diggante kër Baye Sëñ ak kër sëñ bi benn la ko defoon moom mi it foofu la jaar ak rakam ñu ñaanal mi ñaanal leen ko yàlla yàlla sa borom ba defal leen ak wér gu ànd ak guddi fan lépp daal seen aajo fay kenn ku fi ñëw ku ne ñaanal leen daal bëgg nañ ci kattan bëgg nañ ak uh, wér bëgg nañ kattan gu ñu liggéeyal sëriñ bi ndax ay taalibe lañ yoo xam ne ñëwuñu fi jëm fenn ñu fenn liggéey sëriñ bi rek leen fi bay ay soldat lañ daal waxtu wu ñu jëkkee daal ci woo leen ñu ngi ci bu bu bu ñëwoon fanaan fii fii la ñuy fanaan ba liggéey bi jaax ñu door a ñibbi kon loolu sëriñ bi nee Modou Bara nee na moom sant nañ ci bu baax gërëm nañ ci bu baax it nee na sant soxna yi nga xam ne dañoo ànd ak moom ne ci gannaaw wax dëgg yàlla ñoom it wax dëgg yàlla jàpp nañ ci bu baax kenn ku ne jël nga ci sa jëf def nga sa alal nga sa ñaq def nga sa doole kon nee sant na bu baax gërëm na bu baax li mu waxoon lépp mënu ko wax waaye nag fi nga xam fi la xel mi yem rek foofu laa cee mën a yem kon nee sant na bu baax gërëm la bu baax di la ñaanal sa taxawaay nga yàgg fi yàggal liggéeyal si Ahmadou Moustapha yàggal liggéeyal Serigne Touba ba ñun ñëpp kenn ku ci ne suñuy sët ak sëtaat yëpp fekkee ko ci jàmm ak salaam. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. sëñ bi nee na mi ngi lay delloo nuyoo bi di ko jaarale sëñ Modou Dieng mi ak ñi ñëw fii ndax lii tey jëkku ci yàgg at yëpp ngeen koy def ca mag ñi la woon ba ba jonni tey ji nee na am na ko ñu ngi si di ci gërëm liggéey bi nag moom liggéey rek ndax mag ñi lu am ci liggéey sëñ Touba lañ ci moom ci loolu la nekk wax ngeen ñaanal ko ba mu sax ci ndigal ci liggéey sëñ Touba seytaan bañ koo dog bam bam bam ba mu àggali ba mu àggali liggéey ci ci yoon sëñ Tuubaa bi nee na mi ngi gërëm ndax sa papa ma nee na ja ma sama waree ñaari jaan nee sëñ Baara na ko loolu loolu ci ndigal la bokk yaa ngi digg wax ci lépp waaw ne ni mu ko xam ni mu ko waxee moom mënu ma ko ne waxee waaye ne daal ñu ngi leen sant di gërëm ñu ñaan yàlla ñu fekk koy ati at ati at yu ànd ku gër ak wërsëg dañ mën a ànd liggéey sëñ Tuubaa ndax liggéey sëñ Tuubaa rek moo fi nekk ne ne da leen nekk fi lu liggéey sëñ tubaa kon nag nañ góorgóorlu ci liggéey sëñ Tuubaa rek te yàlla nangu suñu liggéey ni mu ko bëggee nag wax dëgg yàlla mënu ma mënu ma ko ne wax waaw nee naa sant naa mënut a weesu sant mi ngi leen sant di leen gërëm daal mi ngi sant di leen gërëm daal ci ci ndaje mi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf